ku ne xam na du yéen laay jàngal processus bi am pour ñu dem ci élection yi bii yàlla parenage bu fi nekk parrainage bi wax nañ leen ko sànq ci suñuy kàddu euh, y avait quatre-vingt quelque candidats qui avaient à la candidature qui déposé bi ñu déposé en cours de chemin am na ci ay candidats yoo xam jàpp nañu sax ñoom waroon nañu mën am nombre de de de parrains requis bi ci diggante bi ñu ne ñoom euh, dafa am kenn ku ñu gis wala ñeen yu ñu gis ñu ñu war a àndal waaw bon foofu du ay calcul politicien waaw waaw du ay calcul waaw mais li ñu mun wax mooy candidature Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñun jeunesse bi ñun moom nañuy soutenir moom nañu teg te moo fi nekk loolu nga wax nag ne dafa amoon ñun wax nañ ko suñuy kàddu ne moom kat euh, ki fi nekk di njiitu réew mi moom rek la gis mu ubbi woon ab fenêtre ab bunt wala porox ndool di wax waxi sëriñ Touba waaw mu jàppoon ne kooku kat nde moom def na premier pas euh, ci njàngaleem Serigne Touba googu mu ne bon kooku rafet na njort ne bu ñu diisoo xalaat bu ñu weccee xalaat moom mu indil ko li mu yor te jëlee ko ci Serigne Touba dina tax réew mi gën a jëm kanam waaw loolu nag euh, tey jii duñu leen wax ne loolu amatul waaw duñu leen wax ne loolu amatul ndax yéena ma gën a xam ne dañoo nekk ci politique euh, déposé guñu déposé guñu. Euh, candidature yi validé guñ ko euh, waaye duñ leen ne am na duñ leen ne amul ñun tey jii fi ñu nekk tey ak yéen ak li am tey ndax li am tey bokkul ak li am suba wax nañ leen ko sànq ñu ngi insté loolu du du du du lu figé waaw parce que euh, fi mu ne nii dañoo jàngal Sénégal que booy opposé wu da ngay wu même bu waa ji waxee lu baax doo ko tudd doo ko taas te ñun dañoo bëgg def rupture ak démarche boobu Sénégal ndax looloo yàq réew mi waaw loolu moom suñu baat ci kaw ki yore réew mi tamit euh, bu deful lu baax nañ ko wax deful lu baax waaye bu defee lu baax nañ ko wax def na lu baax loolu xooluñu ci kuñ ciy taf ci kenn waaw waaw xooluñu kuñ ciy taf ci kenn te loolu yaakaar naa ay propos wu Cheikh Ahmadou Kara nañu nekk Ablaye Wade nekkoon na fi mu mel nii ak réero doon seen diggante waaye bu defee lu baax da koy wax de même que du Diouf ak keneen loolu yaakaar naa du ci épargner kii fi nekk di Macky Sall waaw waaye li ñu leen wax lu leer la mooy moom lii tax muy ànd nit muy dox ak nit c'est très c'est claire et c'est précis mooy da nga koy wax waxi Serigne Touba mooy njàngaleem Serigne Touba dafa jot réew mi ñu bàyyi ko xel ñu sukkandiku si parce que wax nañ leen ko sànq ça fait plus d'un demi-siècle d'indépendance réew mi duñ ne dara dox fii waaye dafa tagga tembe te ku xool Sénégal xam ne bu ñu góor góorloo tuuti boole xol yi boole xalaat yi yokk yërmande lu ñu bëgg ci réew mi mu dem yàlla defal nañu ñu ngi naan fii ci kanam tuuti euh, pétrole daf fiy feeñ waaw dëkk yëpp seen jafe-jafe ne fi mu ne nii ci àdduna bi wàllu économie la waaw ñun yàlla defal nañu fi ne ëllëgu Sénégal ci wàllu woowu xel war na ci dal waaye li xel dalul mooy bu fekkente ne ñi jiite réew mi wala jikko yi soppiñu ko ci ba accaparement am ci yaakaar naa liy del yeneen réew mi moo ñu dal daal bon pour tontu ko ci ci question yooyu mooy si Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mu ngi ci ouverture képp nga xamante ne enseignement wu Serigne Touba bëgg ko prendre en compte ci liy doxal ëllëgu Sénégal dinañ ci ànd ak yow rawatina nag ci élection yi ñu jëm ñu xam ne wax nañ leen ko sànq du élection yi dañ koy noppee